CFO International. CFO International. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju internet yi ñuy teewlu ci seen site bu am solo bi di seen info point net wante itam seen chaîne youtube bi di sene info international ñu fas yéene leen dëgtal benn xibaar jëm ci série boobu nga xam ne euh, moom moo fi tuddoon ci Adji Sarr te ci mujjantal gi sax kon euh, ñu tuddee ko euh, Balin Kumba Balin gannaaw bi nga xamee ne nag kii di aji saar kon masseuse bi dafa gisoon ne daal ci biir série boobu kon dañ ko cee tooñ euh, ndaxte sax euh, nee nañ personnage principal bi daf ko niroon daf ko niru woon lool te sax moom personnage principal ba euh, Adji Sarr lañ koy woowee kon ci biir série bi loolu taxoon ba kii di avocam di maître El Hadj Diouf kon déposé woon ab plante gannaaw bi nga xam ne kon kii di Adji Sarr dafa jàpp ne daal dañ ko tooñ ci série boobu fi mu nekk nii kon mën nañ ne kii di Adji Sarr am na ndam ci combat boobu ndax sax. ñii di waa CNRA gannaaw bi nga xam ne kon waxtaan nañ ak eh, kii di producteur bu série bi kon dañoo décider eh, lii di série ci eh, Adji Sarr nga xam ne mujjantal gi kon dañ ko tuddee Balin Kumba Balin fi mu nekk nii daal kon dañoo décider supprimer ko provisoirement kenn dootu ko diviser kon dinañ ko supprimer provisoirement ba xoolaat kon lii di contenu bi jaa ngeen jëf ci seen teewlu.